waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 Production leader dans son domaine. ah lii ñu am lépp tawfeex sëriñ bi mën may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. seen. Cheikh Issa ci Sëriñ akuk ànd akuk doyloo boo ko jëlee def ko exemple ci seexul xadim doy na sëkk te lamb na ñëpp bu Cheikh Issa Diène ne tëll guddi day leer lislaam ak jàmm du ngeen tàbbi aljana lu dul da ngeen a gëm te seen gëm du mat lu dul dangeen soppante kàdd yooyu la seydina muhammad sallallahu alayhi sallam dénk xeet wi ngir ngeen soppante faaw da ngeen di tasaare jàmm la ca gën a gaaw mooy jaarale ko ci nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullahi jàmm nag mooy lépp ndax diine ju nekk al islaam ci siin ak laam ak miim la jóge te ñetti arafe yi ñooy tekki jàmm diine ji diine jàmm la bañ nañ ko ba li ñuy njëkk suñu dajee muy jiitu mooy nuyoo baatu jàmm li ab jullit di wax bokkum jullitam bu dajee moom mooy salaam muy jàmm la làmbal jàmm la lay ñaanal jàmm la la yéene ca biir aljanna loolu lañ fa nuyoonte saa bu ñu dee yàlla sunu borom yi noonu lañ ko njëkk lislaam noonoo ak jaayante doole rek ka fi nekkoon tax lislaam yar njabootam ci suuxat jàmm ak jëflante bu rafet ci tasaare jàmm ci seeni yëngu rawatina seenum nuyoo. nga yonante bi sax li ko boo tàngoon. am xol buy gaaw a nekk nit ku gaaw a mer koo xam ne ku rànkiñee nga mbooloo dana ci ginnaaw moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni jaaduwul ci ab jullit muy meroo ak moroomum jullitam lu ëpp ñetti fan ki gën ci ñoom daal mooy ki njëkk a nuyoo yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam du ko yàlla yónnee woote jàmm lu ko yónnee wool nit ñi ci jàmm saa boo dajeeg nit ñi nanga leen yéene jàmm ba fitna amee ca màkk yi dana ko gàddaayal wuti jàmm lu dem ma Madina ba am jàmm del si màkk ubbi màkk ubbi ba àdduna ay sëriñ Tuuba ak jàmm dama signé ak suñu borom ni bu limaamul mahdiw feeñoon jamono di jihaat ci ngànnaay duma ko jàppale kàdduy seexul xaddiim ci jàmm ngir nee na duma lor dara lu am bakkan tey dund duma rey jiit du ma rey jaan yoon wi ma tànnal sama bopp dafa araamal ci man jëfandikoo gànnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it tere ma ko. Ah, Seexul Xadiim moom léppam jàmm la léppam amul jàmm amul lenn njabootu Sëñ lu jàmm. jàmm nag daa am lu ci Sëñ Tuubaa waxoon dafa waxoon ni fu ñuy defee lu naqari yàlla bu fa jàmm jëkkee du fa mooy jàmm ji boo koy sàkku da ngay jëkk topp yàlla. topp li suñu borom bëgg ba noppi nag sàkku jàmm mu ñëw woote na rek woote boo xam ne ci jàmm la ko lal ñëpp xam nañu woote bi ca Mbàkke Kajoor jóge fi ñëw Mbàkke Bawol yàggu fa dara mu ñëw sañ ci Daaru Salaam may faral di wax ne baat boobu murid yi war nañ ci taxaw baax a baax Daaru Salaam lu tax Sëñ Tuubaa jékki-jékki ne Daaru mi ngi ci mi ngi jóge ci ay mbooloo ñoo xam ne lu ne wax nañ ko ñi jàpp nañ ne bëgg nguur la ñi jàpp ne daa bëgg nangu nit ñi tafla di boppam ñi jàpp ne dafa dafa dafa dafa dafa bëgg a fol li fi nekk indi ñi jàpp ne fitna la bëggeen jàpp aw ay mu ñëw ne daru jàppal ne kon daru salaam mooy këru këru jàmm ku jàppoo ne aw ay laa yëkkati na nga xam ne man jàmm sama kuddu jàmm la cheikhul xadim wooteem lépp jàmm la àndul ak daray lor ak defaroom ak defareem ak jéggal ay noonam tax ñu ko bañoon setal ko jàmmal ko jàmmoo ak moom bi mu jekkoo ay noonam jéggal na leen ci xol bu sedd guy ñàkk jëfandikoo gànnaay lu mu jaayante la ak suñu boroom taalibe yi mës nañu ko sàkku ci moom mu jihaad ak nasaraan si jël gànnaay jàmmarloo ak tubaab yi dalee laaj ana ñu ko defoon fu ñu mujj daa di ni leen day ana Maba Jaxu daanu na somb nee na leen ana Alburi dañ ko exilé mu dem Niger mun leen ay na am ana Amadou Sayxu Ba ñu ne ko Lamtooro ñu ne ko mu ngi daanu Samba Sadio ana Maba Jaxu somb lima lim ba mu bëri ana Mamadou Lamine ñu ne ko daanu na Lamin Koto bi mu leen koy laaj xam na ni ñooñu dañ doon xeex ci armu waaye taxul lañ bëggoon sotti ndax tubaab bi gañe na leen moom nag mu ñëw natt yëpp xam ni secteur bi dëgg ci jamono ji mun toll mooy jihaat ak bakkan ak seytaane ak àddina ak bànneex naam ay jàmbaar lañu lool waaye man sama jihaat dama ko jëme ci tasaare xam-xam ak ragal yàlla gu mat sëkk xam leen ni samay ngànnaay mooy tawxiid alquran ak xadis ak tasawuf gu sell gi digal naa leen digal bépp taalibe bu aju ci man ni bu leen noonu mukk képp ku ngeen di dégg muy tudd ci làmminam laa ilaha illa allah nañ bàyyi xel bu baax a baax ne Sëriñ Tuubaa daa wax ni ki ñuy wax almahdiyul muntasar bu ñëwaatoon ci kaw suuf woote jihaad ci ngànnaay nee na man Sëriñ Tuubaa du ma ko dimbali daal ni man lan aqtula xayatan yoon wii ma jël dafa araamal si man may jëfandikoo ngànnaay Sëñ Tuubaa ne su ma jëfandikoo woon ngànnaay sama mission si kaw suuf day yàqu bi ñu ba mu mag ñi ne ko mbooloo mi kat bari nañ te tubaab bi na la dañoo bëgg nga woote jihaad parce que taalibe yi taxaw nañ sëñ bi da leen wax ne man da dinaa def résistance waaye nag man bu pacifique lay def man dinaa jihaad nag waaye nag inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidu man da dinaa jihaad waaye nag si tasaade xam-xam ak yàlla gu mat sëkk lan mooy jàmm àdduna dara du fi hasard te takkandeer boo gis jëmm lay tegtale bisub maam Cheikh Issa Diène bu ñu ci waxtaanee jàmm jaadu na ndax léppam ci jàmm ak maslaa la ko amee rawatina ñu tuddee ko borom daaru salaam ak aafiya kon jamiyatu tawdi wa nashr li injaazaat maam Cheikh bu ñu tànnee thème bi nga xam ni moom mooy jàmm dañuy wax ne tànn nañ li nga xam ne moom lañ eh, war a tànn. waaye ñaari ñu ko seq boo leen jàngatee ni nga leen war a jàngatee da ngay xam ni jàmm rek la ñu war a waxtaane ndax boo xoolee daaru salaam dañu ne wallahu yad'u ila daari salaam suñu borom tabaaraka taala dafa woon nit ñi pour ñu jëm fi ñuy wax daaru salaam te mooy àjjana tur woowu la suñu borom la Cheikh Ahmadul Xadim jël duppee ko dëkk bi nga xam ne moom la njëkk am ci aalamu dunia sëñ Tuubaa lim njëkk am ci dëkkuwaay ci kaw suuf moom mooy Daaru Salaam. wax nañ ni itam ci nettali boo xam ne Cheikh si Serigne Abdou Khadir Mbacke la bàyyi ko mu wax ni Cheikh Anta borom gaawaan ak maam Cheikh Issa Diène mosuñoo gis soppiku xar kanamu Serigne Touba. kon da xam ne kon ñooñu Serigne bi ëmbaleen na leen jàmm. te loolu itam euh, kenn ci ñi tagg Cheikh Issa Diène firndeel na ko ku si mel ni Serigne Mamar Fall jooja bi muy tagg Cheikh Issa Diène dafa wax ne ku taaru la taar bi foo ko natt rek paase na ko. daan ni itam guddi ba Cheikh Issa ne tëll guddi gi day leer daan ni bokk na si ñi nga xam ne saa su ne bu sëñ bi mosaa jàkkaarlook ñoom réewooy sëñ bi nga xam ne daa weex ba mel ni wuru si duru day feeñ ngir kontaan si Cheikh Issa Diène jàmm jukka la di aw doxin diw jublu di lu ñuy sàkku di ko suuxat te di ko sàmm julit moom du fen fen mooy ngeen di taxawal dara ma ñëw gise ko commentaire ko noo xam ne bokkul ak la leen tax a jóg loolu bokk na ci fen yooyu yëpp boo gisee jullit di ko ñu koy terew jullit yàq ci làmmañ ëllëg dañ koy fay Cheikh Issa ak jàmm muxjizaatu yonent yi mooy kiraamal wallu yi walli wu nekk mbiram day niroog yonent feeñ na ci gëstu yépp ni Cheikh Issa ku nuree woon la ak turandoom wa Seydina Issa alayhi salaam niru ko ci lu bari ba ci barke ba Cheikh Isa barke bu rëy la ko sa borom defaloon foo ko fekk muy jariñ bindeef yi moo tax jamonoom fu nekk la nit ñi daa jóge mu leen di jariñ ni ko Cheikh Mayacine Oumy Dieng waxee niru na ko ci fonk jaamu yàlla rawatina julli ak azaka du ci maslaa benn yoon niru na ko ci topp wayu juram rawatina wu jigéen niru na ko ci lewat ci woyof ak toroxlu ngir yàlla maam Cheikh Issa jan kenn ci ñooñu eh, maam Cheikh Anta Mbacke mi ñu tuddee bis at mi ren ni ñu waxee di kenn ci ñooñu ñu ñëpp nag jàmm ju leen la leen yar leen jàmm ngi tàmbalee ci ba mu leen dajale ci woo njëpp njëlbeen ga leen ni ko fi jàng rek rek andi woon nag seete fi ko def koo xam ne nag bëgg na liñ bëgg nañu ànd bi dem boobu sëñ bi ngi jubbanti njuumte lu tasaaroo ci biir daara yi te jàmm it boo ko seetloo lii tax mu yaatu te law mooy li ngay woote na ko ñëpp na ci ñëpp yem ngir lu fàttaliku jëmm ju tedd jëmm ju yàlla wormaal jëmm ju sëñ Tuubaa defoo woon te cëral ko te jegeel ko ci boppam te xejjal ko muy Cheikh Issa Diagne yaakaar naa ni ko xam dara ci sëñ tubaa wala wala daray xetam xeeñ la xam nga cër bi Cheikh Issa am ci sëñ Tuubaa muy cër bu rëy boo xam ne ñëpp teg na ci seen bët li wolof di léeb dafa am ci diggam ak moom wolof dafay léeb ni bëgg buur baax na waaye buur bëgg laa ko gën xam sëñ dafa amoon ci moom cofeel goo xam ne nëbbuwut guni fànga la ci tegtal yi ci am yëpp ak xiste yi ñu ci am ci moom yëpp Seexul Xadim ñaare am na ci ay mbir yoo xam ne su ma am daf daf ko daa wax ne ko isaan ak yow wet gi nga féete foofa la féete kon yaakaar naa cofeel mënut a weesu loolu waaye nag yàlla da ko mayoon loo xam ne ci diggam ak sëriñ bi moo di la Seex bi Ahad waxoon ci sëñ diggante sëñ Touba ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunu borom dafa waxoon sëñ Touba sunu borom da ko yee ba noppi may ko mu teel a yow Cheikh Issa sunu borom da ko yeewante sëñ Tuubaa ba noppi may ko mu teel ta yow xamit ni muy waxee ku baax ki xamit ni muy taxawee ci digganteem ak ku baax ki ci ay jëf ak taxawaay daraan def it lépp loo xam ne teg na ci bëtam te jàpp na lii bëggu sëriñ bi la dana ko doonoon royu teef ci ñëpp leer na sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana doonoon imaam ci murit yépp tey seeni njiit sëriñ Masamba ni moo ko ko seedeel niru na ko it ci faj ay jàngoro yu jafee faj niru na ko it ci ak mujjam sëriñ Tuubaa daana wax ni sama mujj Cheikh Isa niru na ko ci mbooleem ay jukko yu rafet rawatina jàmm ndax Seydina Isa alayhi salaam nee na mbooleem jaaruwaay yi metti yi ma jaar suñu borom defal na ma ci jàmm loolu ñu wax ne dafa dondu mbootum Isa alayhi salaam daf koy nuru ci lu bëree bëri boo jàngatee turam ndax boo jàng alquran Isa alayhi salaam day wax ne wa jaalani mubarakan aynama kuntu nee na suñu borom dafa maa defal barke fu moom mos a nekk yow mi xam si ak njëlbeen ba tey jii may wax ak yow xoolal barke bi nga xam ne borom bi tabax sax defaloon na ko koo xam ne fu nit musaa nekk daa nga jariñu si moom te suñ bi da ko mayoon si loo xam ne bëri duñ ko may dafa nit ku baax ko am naa loo xam ne xam naa ko li ma bëgg la koo borom jamono ju ne tasmaa laay xos naa yi nga xam ne ci suñu wati soon yi la ba ko téeméeréel suñu borom xamal loolee laa bëgg a xam mu ni ko sëñ Yuusu dem ba ca fan ba mu jënd ni ko man day mbakki la ma doon sàkk moom lay sàkkuwaat te suñu wata soon yi de ba ko téeméeree wóor na ma ni mi ngi ci mbakki loolu la ba nga baax ma sëñ Yuusu mu demaat ba ci biir mu dellu si ko ko mu ko xanaa néew ma la woon sëñ Yuusu ko ko mbakki dama bëgg ko mu jibile rek mu ni ko doxal tëj buntu fee tëjal ma dee maa yow ak yàlla ba ba sàkk looloo tax mu daan wax bu fekkoonte ni sëñ Tuubaa néew ma maag yow ak yàlla ba bar sàq de man la mi sama taw bi ma jàmmam gu bëri tax na Cheikh moor Jooja Faal tagg ko tagg wu rëy wu rafet ku taaru nga sa leeru xar kanam day leeral guddi ku lëndam fu sëriñ Tuubaa jàkkarloo ak yow bëñam yu weex yu mel ni wurus day feeñ jàmmam ju bëri tax na ñépp jublu woon ko du gëdde du dàqe du jànne du bodde du tiitalaate du nëbbal kenn aw yiw Cheikh Issa tam kenn gënu ko bëgg jàmm ndax mboolem dëkkam yi ngay dégg ñuy tudd ay daaru yëpp daaru salaam la boo demee ndànd daaru jën goog daaru salaam la ko boo demee ngin gi neew daaru salaam xabaan daaru salaam xataa ba ci njenn lagal gi nga xam ne sax daa siiwee njenne wax na lam yàqaloon mooy daaru salaam la ko tudd mu nekk nag lu bare bare bëri wax na ni tam ku bari woon ay suuf la waaye suuf su musa am itam njëkk mu di ko am day jubag waa tund wa xool la fa jaadu mayoon na ko gox yu bare ci réew mi mu am fa suuf te musta coow ngir suuf fu mu dem jubóog boroom tund wa ba xolam sedd lépp lu ñu ko fa jox mu doyloo ko te yam ca ba ci santu ngenn lagan 1924 digganteem ak Mayakoor Juuf diggante baa ngay wéy di rafet ba ci seeni sët mu jàmm ak ñépp kenn bëggul mu wan la ginnaaw ngir jikkoom ju rafet ak melokaanam ni ko sëriñ ma yaasin ummi jëng waxee jàmm ja nag ak lewat ga mi ngi aju rekk ci njub ak fonk sharia cheikh isa jàngal ñu bind yu rëy yu am solo te mooy wut jàmm ju ànd ak full ak xelu di ko yéenante di ko wax di ko jëfe te sax ca képp ku ko def di nga am jàmm yàlla na suñu borom sàmmal suñu kilifa yi ñu yàgg seen ginnaaw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 gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi